ay waxtu la ñuy daal di def ci embouteillage yi ngir rek daal di génn dem fu ñu jëm li ni mel bokk ci jafe-jafe yi nga xamante ni nii lii di BRT bi daf ko daal di jur loole nag daal di leen yi bu baax a baax. métti rek parce que BRT bi rek moom mooy jàll. donc euh, nit ñi ils sont entassés dans une petite route kenn mënul doubler kenn donc voilà de Grand ak fii def nañ fi 15 minutes te avant c'était moins même pas 3 minutes voilà. léegi na fu mu toll nii lu ma juróomi rond point yoo xam ne doo tourner à gauche te nit ñi dañuy miin tàmm nañ di circuler di traverser daal loolu daal moom xam naa lu ma ci gën a naqadi moom si la bokk. su fekkente ni bari na ñuy rafetlu BRT bi fii ci Sénégal ndax gaawaayam ak yombal bi mu leen daal di yombal dem beeg dikk bi ca wet ga mu bari ñi nga xamante ni nii lu mu leen di lor dafa bari lool. xam nga boo waree xëy fii nga dem ville peut avant c'était euh, mais maintenant peut-être c'est waaw xam nga tamit euh, projet day am impact social xam nga xam nga impact environnement ak yooyu est-ce que études yooyu nag ils l'ont euh, très bien mené c'est yooyu def nañ ko d'une manière propre ñu nga xam ne yeneen oto yi ñoo ëpp BRT bi wax dëgg war war nañ na ma dafa mën a dafa waa bu yaatu su oto paanee am fu mu jaar dem li ñuy dund daal di metti lool jamono ji ñuy ñaan jiit yi ngir rek ñu saafara li ni mel wante rek mu mel ni rek seen xaar dafa nar a